alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurr al mayamin wa ala khayri khadimihi idil habli al matin wa ala man iqtafa atharuhum ila yawmiddin bokk julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ashaykhul xadim noo ngi leen di di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu di yowmul jumaa di balu ñëpp xaq di ko bal ñëpp ñaar suma moom bal nu jéggal wala defal tawfiq waxtaante yu ñu bokk ko ci wàllu bu am solo muy wàllu teggin teggin dafay bunt bu am solo ndax mooy taarub lislaam mooy taarub jullit mooy takkaayam itam lislaam itam taamu ko ci lépp lum mën a doon lum doon rek am na ay teggin julli am te da ngay dégg teggini julli teggini njàpp teggini cangaay teggini sëy teggini jokk bokk lum mën a doon rek lislaam jàngal na ci teggin yoo xam ne làmboo teggin de jëfandikoo ko mooy tax jot ca njariñal loola moo tax mu nekk lu am solo lool nekk itam li nga xam ne mooy taaru jullit am bunt yu bari nag waaye Sëñ Tuubaa da ko da ko tënk-tënk bu gàtt ndax bañ na ko ba bind ci téere boo xam ne loolu rek loolu képp la ko jagleel muy jàngale teggin muy nax ju xada il mu jàngale ca wax ne teggin de ñetti xaaj la ndax ñi des ci jëflanteel duñ génn ñi ki nga mag ak ki mag ak ki nga maaseel bu dee nag ki nga mag sa teggin sa digga moom mooy nga yërëm ko ndi ko ndeyam ak baayam yërëme di ko taxawu ci lépp loo ko mën a taxawoo su dee ki nga war maal ko jox ko ab cër ngir adiya su dee ki nga maaseel nga def ko ne sa bopp suñu bànneel loolu mooy yoon teggin tarixatul adabi rahmatu saxiir kal abi wal ummi wa tawqiirul kabir wa jaalu mithlika ka nafsika sawa li wacci xaalixin alal arshi stawa kon day mel ni kon sa diggante ñépp matal nga ko waaye la jiit na mooy teggin sa digg sa boroom teggin sa digg sa boroom mooy la jiit mooy mooy mooy mooy mooy def ko mooy gëm ne yàlla rek a yàlla nga wéetal ko te bañ ko booleeg dara bañ ko bokkaaleeg kenn nag lenn loolu mooy teggin sa digg sa boroom doo ñëw sa teggin sa diggante sa moroom ña nga séqal teggin itam nekk lu am solo mooy mbañam rus mooy nit ki dafa war a am lu muy rus am lu muy jomb man ka rus na maa def nangam jomb na maa def nangam ngir nangam ak nangam nit day rafetal ab daram rawatina ab jullit teggi nit dafay suturaal ab julit dafay suturaal nit Sëñ Tuubaa ma ngi koy jàngal di wax ne teggin suñu dafa def teggin muy nëbb ak réer di nëbb itam askan wu suufe nit ki su réeree jàngul waaye am nay teggin teggin ba mooy muur loola ba kenn du ko xam su fekkee dafa bokk ci askan wu suufe wu ñëpp xeeb tam ami teggin tegg bi dana sàng lool ba kenn du ko xam wa huwa lasi jaala xusnal adabi yox fi jahalatan waxu xanasa bi teggin itam dafay e, jural nit ki ak texe te nit ki lépp lu muy sàkku lépp lu muy sàkku rawatina ki sàkku ak njub wala muy sàkku ak texe wala mu bëgg a jariñu te làmboowut ay teggin jot ca loolee da koy jafe nit li muy sàkku te sàkku koy ay jot ca day jafe id kullu man bi xeyrihi raama tiba fi noo yoxram fawzan wanti faa képp koy sàpp ko sàpp ko topp yàlla donte yaa ngi topp yàlla ni nga ko war a toppe waaye topp ga andu taki teggin te teggin yi sax mooy tax mu doon toppin wu war dees ko xañ ak jariñu ca topp googee dees na xañ ak texe te nit ki buy topp yàlla loolu la ca sàkku muy texee ko jariñu su fekkee yaa ngi topp yàlla te mu ca texe ko jariñu nag kon loola day mel jëf ju naax saay la te ñàkki teggin na mooy waral loola teggin itam mooy ngeen ji lépp nit ki sàkku àdduna ak alaaxira mooy mooy mooy li ca gën mooy li gën ci lépp ni ko sàkkoo tedd nga wala daraja teggi na ci gën o fi daarin xayru kanzi wa xayru ma tazza bihi do izzi teggin itam dafay taxa am e, leeruk leeruk xol te xol bu leeree mooy lii xëcc borom di ko jëmale aljanna waaye dafay tax itam dafay dafay dafa dafa dafay dafay sagal nit day tax kenn du la mën a xas fenn kenn du mën a yàq sab der fenn soo jëflanteeg ñëpp teggin ku fa toog bëgg laa yàq ña nga ñoo koy wax déedéet kooku kooku ku baax la ko mi teggin ko nangam ko nangam ko nangam la te ba ba sab der seet ci nit ñi nag ngir ay teggin noonu lay seete fa yàlla ba loolaa lay solil sa wara li annahu l munawwirul janaani كما يقرب إلى الجنان ويجب المدح لدى yu كما يباعد عن النيران nit nag lépp lu mën a am mayees na koo boole loolu toroxal ba mu des ay teggin nit dana am alal ñu boole ko ak alalam toroxal mbaa mu am daraje ñu boole ko daraje ci toroxal wala moom tedd nga wala ab sakk wala ab taar ñu boole ko loolu toroxal waaye daa ami tegg ñu boole ko tegg ni toroxal bët mosu ko gis nopp mosu ko dégg kon teggin e, dafay sutural ab julit waaye mooy taaru boroom xam-xam itam nit ki lu xam-xamam bari bari bari bari bari te amuti teggin xam-xam ba toroxtaange rek la ko jural Sëñ Tuubaa mi ngi koy wax fa kasratul ilmi bi gayri adabi jaalibatun ilal ada wa taabi xam-xam bu bari bu ànd tekki bu àndu tekki teggin dafay ñoddi borom jëme ko ca ay lor ak i coono rek mooy du ko jural njariñ la jur ci teggin na kon mooy war bokk na ci teggin mooy war ma ku am war ma ku nekk nga jox ko war ma jamu laaj tàmbalee ci nag ci ki la mag <clears throat> ki mag nga war ko ngir màgga sëñ bi jàngal na ca niñ war niñ war a war mag ci boo toogaaleeg moom bul xëcc jenn daraja ci kanamam wala ngay toog ca kaw wala ngay toog moom sax ca kaw bu toogee ca kaw na nga toog ci suuf boo toogee mu itam na nga yàggu ba ku la gis xam ne wekk nga kii nga toogal kat ànd ak dal ak xeebu bul toog itam di ko ñooxu waaye na koy dànd bul toog itam ci njëxam ma fi kanamam nga toog fa bul tàll say tànk jëmale ko ci moom yépp ay teggin yoo xam ne war ko sàmmonte koo mag waxuma la ku la gën waaye nag ku la mag rek ku la ëpp teggin ku la ëpp ay at ni ñu war a sàmmonteeg nit nag noonu la war a sàmmonteeg barab barab bu tedd bu yàlla def ngëneel ka fa nekk wërte yam ak nekkut rawatin nag barab yi ñu nekk muy Tuuba nga xam ne Tuuba suuf la su tedd suuf la su màgg suuf su am ngëneel la suuf la suñuy fële ay jëf yu baax waaye di fa fële yit jëfi safaan loo fi jëf jëf dañ ko dañ ko fën ngir màggaayu barab bi kii suñu yaakaar ñëpp di Seexul Xadim fii lañ ko mujjee gisee mu di fi dalloo njabootam ko baax ga di suñu yaakaar ñëpp fii la ñu nekk kon ki dëkk Touba wërta yama ku dëkk Ndakaaru mbaa ku dëkk Mbuur war naa sàmmanteeg lu bare bare bare bare bare war a moytu lépp lu dàqonte ak i lépp lu dàqonte ak warma te sëriñ baa ngi ci soññee saa su nekk ci warma ji ñu war a jox barab bi ak teggin yi war a sàmmante waaye dafa mel ni rek ba tey eh, dëgër bopp gi day gën di fees am ci lu ñuy seetlu ci fan yii ay gone rek di ko def nag ndax mag moom àggul ci ñàkk fay deg loola mooy li ñuy tudde ay pitaar ñu di ko tàll lu baree baree baree bari tàll nañ ñañ koy yore roye ñu ay jullit ndax feet feet yi nga xam day am ci at weer yi nga xam ne feet la yoo xam ne feet feeti yeneen diine la ab jullit rek waru caa feeñal lennam rawatin nag ab murit rawatin ko dëkk Tuuba te pitaar yi ñu cee taal loolu ñe ko ñay def seeni feet ci ci ci ci weer wi ak ci fan yi nga xam ne jeneen diine la soxal ñoo koy def te fan yi pitaar yi bari na lool ci di ñu di ko ñu di ko taal di yàq nel ay ay nelaw di tiital ay nit di ci yàq itam alal ju du jeex loolu ñu xam ne ay gone waaye gone gu nekk na am na kilifa kon bu ko gonee def mel ni kilifa yaa ku ne fekkante téye téye nga ña nga yilif ñuy ay gone dox seen diggante ak loola loolu ci bari naa saafara ay gone kenn du leen boyal ci seen coobare fu leen neex jëm nu leen neex def gone gone ci kër la jógee kër gone am na kilifa kon kilifa nekk moo war a jàppale sëriñ bi nag ci li mu bëgg ci dëkk bi muy sàmmanteeg teggin yi sàmmanteeg warma ji euh, euh, gannaaw bu ñu ko sàmmante ñoom ci seen bopp ñu xam ne Sëriñ Tuubaa lépp lépp lépp loo xam ne rafetu ci lislaam rek rafetu ci dëkk bi ñu du ko ñu ñu ñu ko jëfandikoo kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax xam ne teggin ci la taaru ku nekk nekk ab julit ci la taaru murit nekk ndax sax ak taalibe sax booy seet lépp mooy ay teggin rek ay teggin mooy ak taalibe ak taalibe su ca teggin dàqoo dara desuti ca ay teggin bu jógee ci taalibe dara desuti ca moom kon jëm bi dëgg-dëgg ak taalib mooy sàmmanteeg teggin sa diggante sëriñ bi sa digganteeg barab bii nga nekk muy muy muy muy Tuuba kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax xam nit ki kat njariñam mu ngi ci topp ndigal ak murit ci ndigal lay jariñoo ci jëfi ndigal lay jariñoo laa tafaalu shay'an bi ghayri idni fexe shartu fi qabuli shay'in kon nit ki mënut a jariñu mukk te topp ndigal sun borom ci topp ndigalam ci ngay amee texeeg ëllëg ci ngay muccee ëllëg itam ci sawara waaye itam e, ab muritit te mooy ab jullit rek mooy moom laa wax léegi ci topp ndigalal kilifa gi ndax siñ siñ bi diglewul lenn lu yàlla diglewul terewul lu yàlla terewul indiwul lu yees lislaam ju sel rek la ñu indil teg ko ci sunu kanam wara a sàmmonteeg lool nag mooy fexe ba seetal su suñuy ndab mën a jariñu ci mën a jariñu ci ndab li kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñëw nag ci ñaari xutba yi nga xam ne moom la imaam war a jàng ci kanam tuuti njëkk bi tàmbale ci sant yàlla ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo solal jaamam ñi ko ragal eh, koddaayul kóolute ci mbugalam te def itam mujj képp ko dëddu ak jaamoom ak mujjam nekk njàqare ak tiitaange tey seere na yàlla rek a yàlla te yàlla moom yi mooy ki texeel lislaam mooy ki ko taarale ci yonente bi mu ci wàcce seral ci itam xooli yi jullit yàlla ko yàlla dool xéewal ak mucc moom ñoñam ñi nga xam ne ci jege giñ ko jeg giñ ko jege ci lañ amee tedd nga ci lañ ame itam ak càng gu sax dàkk ak koom lu amul fu mu yem ak saxaabam yi nga xam ne Eh, ci ñoom la yàlla dimbalee diine ba dëgërale ko ci ci seen dimbal mu ne gannaaw loolu yéen nit ñi yàlla day eh, loolu xutba ñaar maa ngi jéglu xutba xutba bu njëkk bi dafa tàmbale ci sant yàlla mi nga xam ne kenn du teb bi ab àtteem deesul delloo gannaaw itam itam ab dogalam ak nammeelam yàlla mi soppax ci ay jaamam ak i bindeefam nu mu ko soobe te bind ci ñoom ñoo xam ne ku ñu ko soob jub ku ko soob jubal ko teg ko ci yoonu njub ba kookee dëddu àddunaa kiit rafet rafetam ak itaaram ngir xam ngim xam ne luy jeex la jàmboo itam dëgmal àllaaxira fexe ba fàggu yóbbal bu baree baree bari bari ngir bisu delluwaayam tey seere na itam kenn du buru ko ma yàlla moom rek dee su ko booleeg dara di seere yi ne sa Seydina Musaa sam mooy yonentam tey tànneefam yi nga xam ne ci ak leeraam la bindeef yépp àdduna sépp di di di niitoo mu gannaaw loolu yéen nit ñi na ngeen jël ci seen dundu àdduna gi doylu doylu lu ngeen am lum néew néew néew na ngeen ko gërëm loo te des te def la koy mot li muy ak doylu waa bu leen def ne seen seen soxla sépp muy dund ak àdduna ak di fa ëppalante ndax xam te xam ne àdduna luy jeex la lu gàtt la luy jeex la am yemukaay la kon na ngeen taxaw nangeen nangeen na ngeen na ngeen taxaw ci seen nelaw càggante te yow ci seen xóotug nelaw yii te sàkku ab yóbbal te ngeen ji yóbbal nag mooy ragal yàlla te ngeen farlu ci lépp leen tabal aljanna te dee leen musal ci sawara loolu nag mooy ngeen di teet mooy yi lépp la ak mooy yàlla nga teet ko mooy bañ ko bañ ko jage waaye taxoo ko ragal yàlla ak baril ay tudd yàlla ndax sun boom nee na képp ko bàyyi xel taxawaayu ëllëg ba ngay taxaw ci sa kanam boroom ba tax nga teere fereer sa bakkan ci bànneex yi kooka àjjana rek sax waayam wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa xutba ñaareel bi mooy li may tàmbali léegi mooy sant yàlla ak julli ci yonent bi teg ca ne yéen nit ñi yàlla day bind nu ngir fo boylu nu nig jurit ba fu nu neex jëm waaye daa wax ne binduma jinne ak nit lu may ngir ñu jaamu ma wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun mu ne kon na ngeen buur jëm ci li taxoon ñu bind leen te mooy jaamu googu tey rafetal seeni jëf te bàyyi xel bis ba nga xam ne dangeen dellu fi ca kanamu yàlla taba tabayit lu lépp lu bakkan fàggoon des na ko fayanteeg moom te yàlla du tooñ lu néew néew wa taqu yom taqu yom turjoon fii ilallah summa tuwaffiya kullu nafsin maa kasabat wa waaye na ngeen xam ne ëpplante ci àdduna bu mu leen soxal nekk fii ëpplante ay alal ak ak ak njaboot ëpplante ak alal ak njaboot indi wunu fi bu ñu ko bàyyi xel na ngeen gàtt seeni mbébét ndax bis penc kat alal amu fa njariñ njaboot amu fa njariñ yàlla def nu rëddal ay frontières yoo xam ne fa buñ fa àggee dañu dañu war a taxa foofu yam fa waaye defal nu itam boole noog itam ay sàmm yoo xam ne ñooy bind li ñuy jëf te dinu seere kon da ngeen gaawantu jëm ci tuub tuub gu sell ci bépp bàkkaar moo xam bu tuuti la moo xam bu mag la bàkkaar bu ndaw ak bu mag te ngeen topp nag wax ji sunu Boroom wax ne yéen ñi yàlla nangeen ngeen tuub jëm ci yàlla tuub gu sell yaayu lislaam tuuboo ilallaahi tawbatan nasuuxa mu tëjee ko ak ñaan yow sunu boobu yàlla na nga jëf leen teg ñun ci sa ngëneel ci kam laay ni nga toll ci tedd nga ak daraja waaye bul yow mi nga xam ne yaa ëpp yërmandi mboolem yi yërme waaye bul jëf leen teeg ñun itam bul nu jàppe sunu su ni nu toll ci sunu kees ak suufeeku doyadi te nga jéggal nu te jéggal mboolem julli yépp yaxfirullahu lii walakum wa li saa'iril muslimin yàlla na suñu boom wala defal dégg ak topp defal ndimbal ak tawfiq ak mucc xiir nu ci ak njub te saxal nu ci njub ga te def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ومراده المتصرف كيف شاء في خلقه وعباده وخلق منهم من شاء وهداه إلى سلك سبيل رشاده وأعرض عن الدنيا وزخرفها لعلمه بنفاذه وأقبل على آخرته وأكثر من الزاد ليوم معاده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه الذي بنوره اشرق الكون في اغواره وانجاده اما بعد فيا ايها الناس خذوا القناعه من دنياكم وارضوا منها بالقليل ولا تشتغلوا بعمارتها والتنافس فيها فإنكم منها على رحيل فانتهوا رحمكم الله من سنة غفلتكم واستيقظوا من عظيم نومتكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واجتهدوا فيما يدخلكم الجنة فيما يدخلكم الجنة وينجيكم من النار وذلكم باجتناب المعاصي ولزومكم التقوى وكثرة الأذكار قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الحمد لله الذي ألبس أتقياء عباده من عذابه أمنا وجعل عاقبة من أعرض عن عبادته هما وحزنا نشهد أنه الله الذي أسعد بالإسلام برسوله وأقر للمسلمين عينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين نالوا بقربه سؤددا دائما وغنى وأصحابه الذين كانوا على نصرة الدين عونا أما بعد فيا أيها الناس إن الله لم يخلقنا عبها ولم يتركنا هملا بل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فانهضوا لما خلقتم له وأحسنوا عملا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولا يشغلنكم التكاثر في الأموال والأولاد وقصروا أملا فإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إن الله قد حد لنا حدوداً وجعل علينا حفظة وشهودا وبادروا بالتوبة النصوح من كل ذنب صغير أو كبير فامتثلوا قول مولانا اللطيف الخبير يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله توبة نصوحا اللهم عاملنا بفضلك بما أنت أهله يا أرحم الراحمين ولا تواخذنا بما نحن أهله واغفر لنا ولعامة المسلمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 allahu akbar allahu akbar sami allahu liman rabbana lakal hamd allahu akbar allah Allahu akbar الحديث الواسية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام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 الله ربنا ولك الحمد الله أكبر الله asalaamaaleykum asalaam